nu dikk ci leeral ni ñu ko baaxoo defee ci Touba ci kanam weer wu nekk ñu wax la ca dugg ci compte Touba ci kanam ak la ca génn ak li Touba ci kanam dese ci ay kontam weer wi nag di weeru octobre moom la ñuy gaaral tey ci Touba versé nañ million millions 607 mille 842 Boudé UFB 78 544 33 33 mois d'octobre 2 118 956 de na Orange plateforme 144 621 jees li ci 15 641 180 bureau Dakar ci njiital bàyyi Serigne Bousso ak Alhaji Ndaw dugal nañ ci compte yi cinq millions six mille neuf Pout ci njiital sëñ Ababacar Ndiaye versé nañu ci compte yi soixante six mille Mbacke Adja Jorgay Serigne Mama Fall dugal nañu un million cent dix mille dagana ci njiital Baye Saliou lay dugal nañu ci compte yi cinquante mille Jurbel soxna Nday Njaay soxna Daba Mbàkke un million quatre cent quinze mille Kujaan Sëriñ Ibra Ñang soixante Xombal Mbay Fay deux cent cinquante mille Louga Seri Moussafa Bassirou 2 631 500 Yaraway Yafad Medjeng, 110 000 Kabemer Sri Rossil, 1 405 000 Kaolak Seri Moussafa Touré 3 120 200 Saint-Louis Sri Rijal Sek Sornaramafal 450 000 Taïf soxna Daba Thiam vingt quatre mille Bambey Serigne Abdou Fall cent mille Kolda Serigne Moussa Sène cent quatre vingt mille Worosogi soxna May Mbàkke deux cent mille Touba soxna Sodo Diop cinquante mille Vélingara Serigne Mbàkke Gueye cent mille Fouta Bokkilaaji Mamadou Fadilou Dia cent cinquante mille Daaru Musti Soxna Muslim Mbàkke cinquante mille versement anonyme maanaam ñi dugal xaalis te xamuñu seen tur toll na ci un million deux cent trente mille seize francs Daaru Salaam Diouf Sëriñ Yuusu Cuun trois cent cinquante mille département Linguère sëñ Cheikh Jorel Mbacke un million cinquante mille Moudéri sëriñ Basirou Ndiaye cinquante mille Ndiawara sëriñ Cheikh Anne cinquante mille Kellel sëriñ Cheikh Diop cinquante mille Gassane Soxna Faati Mbeng cinquante cinq mille Ayrelao Fouta sëriñ Xaarim Sow cinquante mille croisement Diarumbe sëriñ Muudu Maxtaar Mbay cinquante mille Ngunjaan sëriñ Muudu Caam cent mille Ranérou sëriñ Souleymane Diagne cinquante mille Njàppandal soxna Abi vingt mille Casamance Mamadou Xari Gueye deux cent vingt mille Daaru Minam Bamuk Serigne Ibrahima Congaan cinquante mille Noobe Lay Ndo Ndoobe Lay Serigne Fallou Fall vingt neuf mille Kolobaan Soxna Thiam vingt et mille Jem Jàlle Kabu Kebe vingt deux mille Madina Touré Soxna Ummi Fallou Mbàkke cinq cent cinquante mille Dakar Yoof Ndëngaan Laay Gote Diop cinquante mille Mboro Serigne Jili Seck cinquante et mille Njum Gent Serigne Moodu Mbay cinquante mille li nga xam ne moo daje ci biir réew mi mooy zone nationale toll na ci cent sept millions huit cent quatre vingt mille cinq cent quatre cent sept millions 895 594 Boudeti bitimreo. ci zone Asie Manam continent Asie Liban Alin badra Dabo 200 000. Japon Serge Digel Diop 315 000. loolu zone Asie total bi 515 000. bu zone Amérique continent Amérique Sili Serin Khadim cent quatre vingt dix mille Argentine Serigne Pape Soda Sey six cent trente sept mille Canada Serigne Pape Amar quatre cent soixante mille Brésil Serigne Cheikh Ndiaye quatre cent cinquante mille total bi doon un million sept cent trente mille bu dee ci zone Europe continent Europe Suisse. Serigne Diaga 825 000. Italie, coordination habit 9 373 176. France, coordination habit 2 335 769. Espagne, Serigne Malek 751 193. Total Europe bidon 13 285 138. Bureti zone Afrique continent Afrique Guinée Conakry Serigne Abdou 533 000. Gabon Serigne Pape 6 000. Congo Brazzaville Serigne Alhaji 250 000. Mali Serigne Aliou 806 000. Afrique du Sud Serigne Mordjeng 225 000. Côte d'Ivoire Seigneur Morfasa 1 250 000. Guinée équatoriale, Serigne Khadim Diop, 844 500. Mauritanie, Serigne Ibrahim Assar, 1 million. Cameroun, Serigne Siach Nyasa Gueye, 2 77 000. Bouboule les continent Afrique Biepou, Ming 7 millions. 822 500. Si li jugee ci biir réew mi ak bitim réew ñëw ci Touba ca kanam ci weeru octobre mu ngi toll ci cent trente et un cent cinquante cinq mille deux cent trente deux cent trente deux cent cinquante cinq mille deux cent ñu ñëw ci jaayante bi nga xam ne moom du bokk ak carte de ak euh, récit bu dee ci biir réew mi jaayante bi trente six millions six mille quatre cent dugg na ci bu dee ci zone Europe jaayante bi deux millions quatre vingt dugg na ci bu dee ci zone Afrique jaayante bi deux millions six dugg na ci kon total jaayante bi lépp mi ngi toll ci quarante millions sept bu fekk see li ñu tuddoon léegi ci carte de membre agressi total bi day doon ci weeru octobre bi cent soixante douze millions vingt deux mille cent quarante cent soixante douze millions vingt deux mille cent quarante deux. ginnaaw bi ñu waxee li dugg si ci compte yi ñu wax nag li nga xam ne moo ci génn ci liggéey yi Touba ci kanam di amal poste de santé ndaam ci weeru octobre. 4 862 000 dem santé université 500 000 dem na santé Touba 3 195 000. santé Darou Khadim poste de santé bi 220 000. commission santé l'Union jël ci octobre 66 000. Commission communication, 310 000. Sars fixe et salaire, tueur octobre, 5 107 500. Commission membre, carte de membre récit, octobre, définitivement, 1 55 000. Budget de fonctionnement, 1 million, tueur octobre.

Touba ci kanam génn na ci octobre bi 350 millions 27 544 Si nous avons nag li nga xam ne am nañ ko octobre 172 millions 22 142 mu fekk si li ñu amoon ci weeru septembre li fi nekkoon ci septembre 1 milliard 86 millions 551 700. 99. Bonjour ñu xoolee am octobre 172 millions 22 142 mu fekk ici, li newoon ci septembre di 1 milliard 86 millions 551 mille 799 lépp dafay 1 milliard 258 millions 573 941 ñu daal yi ñu wax

waaye di jëfal collecteur ak collectrice yi nga xam ne ci ñoom la ñuy jaare ngir mën a barkeelu ñu ngi ñaanal mu taxa Mbacké mu yàgg fi lool te wér te matal yéeneem ci liggéeyub sëriñ Touba wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu wajalilaahi maskani tubabat misrasmia bi jaayi xayri manabat